مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV kon niñ koy defee rek diine ak mbër ndax dañoo nekk ci koor di baal ñëpp àq te di baal ñëpp àq nañ ko doon defee rek noonu à chaque fois nee naa leen chaque jour di ngeen di gis li ñuy préparé li ñu dul préparé di ngeen ko xam tey nag ñu ñëw fii ci benn brak ñu seet ci champion. mu nekk mbër boo xamante ni te boo nee benn baraak soo nee benn di nga ko tudd wala boo ne un da koy tudd muy armée bu benn baraak mbooloo fii nag mooy buntu néegam xamuñu nag ba xam day nelaw wala nelawul parce que laajte nañ ñu mi ngi ci biir day soog a jógee entraînement ah kon donc kuy soog a jógee entraînement rek da nelaw wala xamuñu lu muy def mën na am tamit muy play loolu yëpp mais bas da nga may topp ndànk mu ubbi néeg bi ñu xool mbër mi lan lay def acca bas ah mbër mi pléyut gis ma ko mbër maa ngi nii di nelaw arme bu benn baraak mbooloo <laughs> mais mbër mi daa mel ni daa ragal koor de <laughs> mbër ak diine <laughs> mais parce que mbër mi daa mel ni daa ragal koor de waa mbër gaañ ci loolu mbër gaañ mbër waa mbër gaañ mbër ak diine waaw mbër bi dañ koo fekk bu nelaw mais mbër nelaw ba heure bi da ngaa ragal koor wala nu mu demee noonu <laughs> mi ngi nii armé <laughs> kii yeewu na wala yeewul bas <laughs> armé maa ngi lay nuyu. waaw ah, ngi nii dañ koo bett muy armé bu benn brak mbooloo. di leen jaajëfal yi ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV gis ngeen armé bu benn brak tey moom lañ seet si wax dëgg yàlla kon ni ma leen ko waxee rek de nekk koo xamante ni champion la ci biir champion yi naan nag mbër ak diin lañ wax. dañ waxtaan moom ci li nga xamante ne moom mooy diine gis ngeen ni arme ñun ñoo ko yee bañ ko yee sax gis ngeen ndax nee naa leen li ñu préparé ak li ñu dul préparé yéen xam ngeen ci dara ñu fekk ko koy muy nelaw armée dafa mel dafa ragal koor xaw lan moo tax muy nelaw loolu yëpp après dañ ci waxtaan dañ koy bàyyi mu nuyoo ndax dafa sëñ bi ñëw ñëw toog <laughs> mbër maa ngi lay nuyu. waaw alhamdulilah bisimilah inna wali yàlla fan maa ngi lay fay. Mm. di nuyu sa caméraman bi jiili Basirou Basirou di nuyu Basirou di nuyu waa Sénégal yëpp di wax ñëpp Ramadan mubarak yàlla nañ yàlla nangul suñu koor ak suñu jaamu yàlla te lépp lu ñu def si ay ñaawteef yàlla jéggal ñu ko lépp lu ñu def ci tiyaaba yàlla fulal ñu ko ci barke Seydina Mohamed waaw di nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp aussi di nuyu surtout sama fan si sama papa sama sëriñ sëriñ Cheikh Kounta Ndiaye sama bépp wóolare maa ngi lay nuyu daal di nuyu sama sëriñ sama xarit sëñ Abdoulaye Diop borom xaas hmm? di nuyu waa benn baraag bi yépp Kër Masaar Malika Buun yëmbal kulluhum rek waaw képp kuy béggee armée foo nekk rek maa ngi lay nuyu bu baax mhm. oui noonu la nuyoo armée mbër ak diine lañu wax tey ñu fekk la ngay nelaw lan moo war nelaw bi armée armée da ragal koor yow heure bii ñu ñëw yeesi la ay quatorze lu waral loolu. non même pas ñun moom yàlla dogal na noonu lañuy woore wooree ñun buñ bu buñ guddi gi dañuy nekk suñuy activité ba yenn heures yi buñ jullee fajar la tëdd suñ tëddee deux heures maa la ñu yeewu julli. Mm-hmm. soo ko continuer nekkaat suñuy activité ba heure ndogu mais xiif moom mënoo koo def. Mm-hmm. xiif yaakaar naa ni. ki la ëpp kàttan moo la war a gën a ñeme xiif ndax boo imaginer xale bu ndaw pour mu woor day metti aussi mag bu demee ba jël benn âge bi pour mu woor day metti kon koor jeune moo ko war a gën a mën kon d'accord ma nekk jeune am doole di bañ a woor naan ay mënu non non lool loolu font la loolu moom diine ju woyof la rek yàlla nañ ci yàlla musal. oui. alors mooy yi ak corps bi na lay demee parce que en général dama daan gis mbër mu dem entraînement mooy ñëw tëdd xam nga delloo néegam tëdd nelaw mais ñu gis sa euh, nga nelaw ngay nelaw loolu da demoon entraînement wala demoon entraînement. waaw maa ngi woon samay activité moom. Mhm. waaw. Mhm. vraiment bi ma jullee fajar laay soo a tëdd. Ah, activité yi kon entraînement ci la bokk. peut hmm. mais maa ngi woon samay activité bopp daal. mais mbër looy na benn ay kii na mais mbër <laughs> mais xam ne armée tamit day préparé fëgg wax nga dëgg. ñu ngi woon suñu activité rek fajar gi noonu ñu tëdd xam yaa ma gën a xam. Hmm. activité moom lu nekk xaj na ci. Hmm. wala. waaw. fëgg la ngi lay kiiwal de mi ngi lay nelawal bu baax baax baax wax naa li ma xam. kuy kooku ah, ah, nga ne <laughs> kuy kooku. dañ ci xam dara après mu naan ku ku kooku borom États-Unis ah <laughs> armée borom Sénégal. waaw loolu la yàlla dogal. armée ñëpp xam nañ ni koor lañ ci wax. ndax hmm. parfois sax dañuy dégg ñu naan weeru ngëneel la weeru promotion mais loolu nan nga ko déggee. waaw loolu lu wér la. koor sama papa daf ma faral di wax. weer yépp a baax mais rawatina weeru koor weeru istixfaar la maanaam jéggalu di faral looy sikar di faral di def ay astafirullah salaatu ala nabi loo ci mën doyul ndax euh, mën naa ni benn weer la ci at bi weer bu nga xam ni lépp loo def yàlla di la ko fulal kon loolu loolu jarul caaxaane kooku dañ nga cee war a chargé waat bëtëri imaam yi bu baax a baax a baax a baax a baax donte ka ñu ngi ci woon sax mais dañ koy gën a yokk waaw loolu moom ci lañ sax daal. Ah. arme ñu bari bala seen jaam yàlla bala moo gën a mat rek ci koor dañ koy gën lañ gën a def est-ce que tey jullit war naa xaar ba koor rek muy soog a jaam yàlla. ah jullit bu xamee ponk yi yiy composé wu ci moom pour mu war a mën a nekk jullit waru cee sàggane benn muy ginnaaw ba nga defee baati seede yi nga ñëw iqaamu salaat taxawal julli juróom te bu dee yow dangay bàyyi ba koor ba koor ngay julli suñ nee la yéefar nga nga bañ te li ñu jàngal mooy baynal mu'min wal kaafiru tarku salaat di dox ci diggante jullit bi ak yéefaru mooy bàyyi julli kon tey bu nekkee yow jullit nga nga ne yow weeru koor ba weeru koor ngay julli yaa ngi nax sa bopp loolu diine ju woyof la mm, woor natt azaka et tout yooyu soog a ñëw ba ci aj màkka mais boobu li man istatan istatan la wax la yàlla wax ci ku ko àttan mais boo ko àttanul ponk boobu dalay wàcc kon diine du question ndaw laa wala mbër laa noonu non ngay jaamu yàlla ba yaakaar ne suba nga war a dee mais liñ liñ war a nekk muy suñu métier buñ ci nekkee dañ ciy nekk ba ñëpp xam ne lii mooy suñu métier mais ak fulla ak fayda oui. nit ban âge la war a jullit ban âge la war a commencer woor as booy commencé woor bu dee ci lislaam dix huit ans nga mesure nga mesure bokk euh, waaye as woor moom amul ñun dañu ciy tàggat bi ñuy xale bi ñuy xale la ñuy tàmmal woor doon dama doon woor bi may gën a nekk xale di sàcc di naan may fàttaliku yooyu di sàcc di lekk mais nga koy mënantu mënantu mais boo demee ba ba ba egg ba mesure yow bu boobaa day fekk nga mën koor mais bu nekkee da ngaa bëgg a bàyyi noonu rek di caaxaan di caaxaan looy gën a dem muy gën a metti ma xamal loolu mais loo ko gën a tàmm sa ndaw looy gën a dem di ko gën a mën. Mhm. Mhm. wax dëgg yàlla fàttalikuwuma ko. Mhm. waaw waaye ci lu ma doon forcé wu la sax yenn saa yi ñu naan ma dangay woor ba mu di xam nga di dog yooyu naan ma di ma nax mais loolu sama yaay dama seet teel a tàgget da teel a ñemeloo xiif waaw moom doomam yépp dalay yar moom xaarul comme góor déedéet moom dalay man moom dalay yar comme góor ni muy yaree dalay ñemeloo coono ñeme loola sonn xiif ñeme loola tumuranke moo tax yooyu yëpp dara sonalutuñ ci àdduna mm. lan moo la gën a marqué ci sa woor xam nga parfois ni dangay woor sàcc lekk sa biir di métti parfois nga lekk ñu bett la mais armée sa koor yooyu nanu laan ko wóoru gaale yi non wóoru gaale moom kuy xale yaakaar naa ni mën naa ni jaar nga ci waaye boobu man sama wooru gaale sax yi ma daan kii yëpp mooy ay di jàpp naan di man naa tooyal sama put rek mais ay yenn lekk ni di sax tiitalu ma woon noonu ba nii may wax yow suñu waa kër mën nañ la seede mën naa ndogu du ma reer du ma xëdd continuer wooraat wallaahi dama koy def tout dama sama mag yi dañ ma koy tere sax damay woor re eh, ndogu kase laay def duma xëdd du ma du xëdd duma reer te damay continuer waat woor wallaahi sama mag yaa ngi ci biir duñ ma duñ ma bàyyi ma fen waaw. waa jaar naa daara. Mhm. sama xaaju vie daara laa ko def mhm. waaw. ban âge. Ah, yàgg na. Mhm. ndax man mën naa ni bi ma dugalee école benn année laa jàng. di daw jàng rek. ñu wax ma ma ne man arab laa bëgg a jàng boobu ay tappale nekk ci man rek bi ma arab laa bëgg a jàng sama yaay a ah, kii wax na dëgg moom nañ ko defal li mu bëgg mu yóbbu ma may jàng arab ñu yóbbu ma arab ma dàqa dawati jàng foofu bi mu demee ba xam ni kii su ma ko bàyyee voix bi mu jël xel yi muy teg mën naa mel neneen lu ma bëggul amu ci sax hésité ñu naan non sa caat mi ngay yóbbu daara mun leen eh boo ko boo ko nanguwul la jooyloo heure bi bu màggee jooyloo la moom amul sentiment ci yooyu day mel ni ku nga xam ni juru la mënuma coppet yóbbu daara sama mag yi di jooy xam ay mag yu jigéen laa bëri la macha allah xam nga di nuyuwaale suñu grand frère Pape Sène benn mag bu góor laa am xam nga mu yóbbu ma daara non sama mag yi di metti lu di jooy mais après man damay toogaat di ko sant billaahi di ko ñaanal yàlla yàlla na suufu Touba of si kawam sauvé na bu baax a baax a baax a baax dimbali na ma bu baax a baax a baax a baax boobu ñu ngi gis ne kii xaw nan lay amee doomu bugg ko fekk non boo ma bëgg bu ma bàyyi woon amaana ma yaroo fii dëgg la ku bon nekku fi mais ak fit bi ma yàlla mayoon non mën naa demee neneen mais sant naa sama yaay bu baax a baax a baax di ko ñaanal chaque jour njégal yàlla na yàlla oyofal suuf si kawam te jégal ko bépp baakaar ak mbooleem waajur bu fa tëdd yàlla na yàlla def njégal ci yow. Mm-hmm. oui. dongo daar day nangoo tumuraankewu ay woor yalwaani ñëw boo amee loo war a fóot fóot ko mais sama kooru daara dara dàqu ko am <laughs> sama benn yaay sama sama tànt la mère Binta Fall ba nii nii nii taaye dafay ñëw mais bu ñuy bu ñuy waxtaan bu may expliquer sama koor <laughs> non sama kooru daara moom dara dàqu ko <laughs> uh-huh. non beneen affaire la. Hmm. ndogu ni ma koy programme man rek maa ko mën. <laughs> Fatma damay defar muraake. damay hmm. defar jus bisaab. Hmm. damay defar comme nii damay ut buy nii xam nga foofu dama doon dem si àll bi damay am buy lu bari defar sama jus buy euh, jënd beñe te mburu bi du ñëwagul xool damay dajale dajale day ñëw ne ma waa. lii xanaa man ko bàyyi ma rek man damay ndogu <laughs> non loolu foofu moom yàlla damaa mayoon. <laughs> léegi boo teyee loolu yëpp. lépp daay dégager. da nga koy laay dégager man boobu laa dàqa lekk léegi. ok. moom damay màgg yooyu di dañ mais. Mhm. non ni ma meloon jamono yooyu beneen affaire la. Mhm. sama di may dajale sama ndogu bu ma ko doon xalaat ma ni man loolu est-ce que man man la woon <laughs> yàlla xam ne ni yàggul bi mu ñëwee ñuy toog nii di si waxtaan. Eh. sama tànd di sama eh, soxna papa sama soxna sëriñ xam nga nekk ku baax. Mm. billaahi musuñu sonn musuñu manqué dara. Mm. ma nekkee man daanaka ndax man fi ma nekk daara. daanaka sama kër laa demoon laay wax waaw sama kër laa demoon. Mhm. xam nga méttiwul ci man à cent pour cent non non waaw. armée ku woor nan la war a comporter woon. ah woor bokk na ci yi nga xam ni moom daanaka bu dul koor sax <clears throat> nit ki da ko di gën a di ci xiirtal boppam. muy faral di jàng alxuraan lu bari hmm. di comme ni ma la ko waxoon di jéggalu comme bàkkaar yi bari na di di julli ci yonent bi aussi tey moytu yenn jotaay jotaay bu maanaam jotaay texe di hmm. jotaay bu nga xam ni mënoo faa jëlee dara waaw ay ay boloot ay lido ay jëw yooyu yooyu yokkul nit ki dara comme daanaka at mi yépp ci ngay nekk ngelawaay weeru koor bi jéem cee gañe lu nga xam ni dina la mën a téye li li toog ci at bi yëpp hmm. waaw hmm. Armé tey su ma la waxoon tey euh, benn soxna boo xamante ni woor ba quatre heures. Mm-hmm. mu gis mbaax. Mm-hmm. kooku day continuer kooram wala da koy dagg. waaw bu gisee mbaax koor gi moom yàqu na waaye li gën mooy mu continuer kooram waaye du tee bis boobu da koy fay mm-hmm. waaw. waaye ne gis naa mbaax rek damay dem togg sama mbaxal yooyu. mais gis na mbaax da koo dab wo amoon na yéeney woor bu mu yàq loolu day am tiyaaba ba léegi waaye bu wooree ba bu ko continuer ba koor gi ba koor gi yegg du tee bis boobu da koy fay ba léegi armée tey duma oustaz nag <laughs> armée tey ba léegi sama xam-xam laa waxee de <laughs> armée day euh, ak benn Fatma Dia. Mhm. war a woor comme 30 jours sax dañ naan jigéen mënu koo woor. waaw tey su ma wooree benn 20 jours. 10 mhm. jours yëpp wooruma ko. Mhm. sama koor valable na wala valable parce que fay koor est-ce que force la. comme par exemple di jours yi da nga ciy feebar. feebar dala ciy dab wala nu mu demee noonu. comme 10 jours yi. waaw da nga koo dog yëpp feebar da nga koo feebar waaw mais nekkul ni comme dama gis baax mais dama cee feebar da nga cee feebar feebar bu nga xam ni dem nga ci médecin mu xamal la ni munoo yeggale sa koor mhm. kooku ñaar day taxaw bu dee munoo yeggale sa koor mhm. doo ko yeggale ndax tey diine méttiwul yenn métti yi nga ñëw di lor sa bopp waaye da ñaar day taxaw bu boobaa dangay ngay génnee muddum koor soit danga koy fay waaw bu dee mënatoo woor moom mhm. danga koy génn da ngay génne muddum koor mhm. mais bu dee nag mën nga koo fay dangay fay koor gi mhm. comme que tawat dala cee daboon boo génnee ci koor gi fay ko soo ko fayul am na lu la ciy fekk ah loolu de nag du samay wax waxi yàlla la <laughs> yàlla sant la nga bañ nga ni ba xam am na lu ciy fekk. Mm. ah loolu est-ce doo ko laaj ñeneen ñi. Mm. ah yàlla digle. Mm. Ah, xalaataatal ba xam yow bu la sa wéyjur yónni woon rek wala defal lii nga bañ ba xam am na loo ciy fekkam déet <laughs> doomu aadama comme yow nag laa la wax de ah. <laughs> waaw <laughs> pour yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV tey nag ñu dalal ki nga xamante ni mooy doomu doomu banlieue sax la wax ndax nee na armée dafa nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla jaar na jaar fi daara firndeel na ko te nee naa leen mbër yi dañ leen di xool ci foo xamante ni amaana nekkuñu ko tey armée mbër la mais wax dëgg yàlla am na loo xamante ni nekkul ni man maa ko wax mais yéen ñu ngi seetaan yéen yéen a ak sama oustaz bi nga xamante ni ne xam naa ne armée moom muy koy jugé moom gëm naa ne daal oustaz fi ñu koy gàgganti moom mooy du loolu mais tamit armée tey euh, dafa préparation. jullit julli dafa am préparation. comme euh, naka loolu dégguma bu baax loolu de. comme tey booy togg ceeb. Hmm. da dem marché ndugg. nga ah. xam tey ceebu jën nga war benn. Ah. Ah, hmm. di nga laab maanaam set. Hmm. jiitu. di jàpp. waaw bu waxtu wi jotee nag nga julli ko. waaw. tey euh, booy julli tisbaar. Mhm. ñëpp tisbaar ñaata rakk la. tisbaar ñeenti rakk. ñeenti rakk la. Mhm. armé ñeenti rakk yooyu noonu tey armé mën na ma cee tari saar boo xamante ni tey bu julli tisbaar da ciy bokk. <laughs> fan ma ca <laughs> nag ah, waaw waaw mhm. ndax yaakaar naa ni Faatiha ak saar rek julli na. julli moom pour mu wér. Faatiha ak saar. yaakaar naa ne boo jëlee faatiha ak xul wallaahu ahad mën naa julli waaye ne soriwuma sama njàng soriwul wàccuma alxuraan rek mënumaa julli déedéet waaw euh, pour euh, ñu ñuy seetaan euh, sur Wassare TV Wassare Lamb ñu bari ñu ngi suivre Armé mais Armé. Mhm. Saar Fatia Saar boobu noonu. Mhm. ñu ko la ci yàlla wax. comme lan la ci yàlla wax euh, da ne Fatiha ak kii nga nga wax. ak saar ak saar. Mhm. mais meñu saar bi euh, pour tey ko gars yi nga te ne instant bi ñi ngi seetaan armée wala ñi ngi seetaan te bëgg nañoo saar boobu noonu bëgg nañ ko mën. comme par exemple ma tari la Fatiha ak saar. waaw. ah na auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyaaka nahbudu wa iyaaka nastain ihdina siraatal mustaqim siraatal bismillahi rahmaani rahim alam nasara lak sadrak wa daana anka wizrak lazi ana hadasarak wa rafana lak zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al mm-hmm. <laughs> jaaxal de bas ah, ah? jaaxal armée di as ndongo su ah. <laughs> yow mbër naa la xamal ñaar bëri na ay kan fóor de leer ni waaw kon baax meer bi mhm. da nga fi gis benn kii kaamil la ah. man dama xaw a sax ci <laughs> bas li ma gis gis nga ko armée da ngay di kii waa mhm. moom sama papa ma jox mm, pour ma ci moradian mhm. xam baatu arab boobu da lay xaw a. ah xam naa ko mooy révisé. <laughs> waaw ah, muy yow arab nasara boobu nga tari man ba may ba may jàng kii alxuraan moom laa tari sama conférence. <laughs> Ah. <laughs> Ah, ah ndeysaan. Mhm. dëgg la. bas looy ree. acca. waaw mhm. ah kaamil bi waaw. des ñu ubbi ko jàng. Mhm. ba pour bañ a fàtte yenn yi. lu tax mu offrir loolu ko cadeau mu jox la ko. moo ma jàngal. ok. du day bëgg des fois dama doon toog fii nekk ci palaaneeg noonu. Hmm. mun ma yow ana sa téere man ko man de <laughs> yoruma téere mu yëkkati ne ma jëlee lii dee ci jàng. xam maanaam day am yoo xam ne dala koy dala koy junj. Mm-hmm. mais ba boo dee nit nga da xam li mu la wax. Mm-hmm. moo tax téere bi dama koo fonk lool. Mm-hmm. sama jarbaar yi kenn du laal. mën naa am beneen waaye bii daal bii dama ko fonk. ndax ki la ko jox. waaw. mbër ak diine armé mu benn baraat mbooloo armé tey du waxtaan ak yow ci bare ci koor. te dugg na ci ak i lamb parce que tamit ñëpp xam nañ ni am na combat booy préparé si diggante ak Feugeula mais Armé ñaata combat nga def. man douze combats laa def. ñaata victoire. dix victoire deux défaites. ku la Tapha Gueye 2 ak caat euh, booy bambara. booy boobu noonu. Hmm? booy bi. booy ban booy caat. caat waaw caat sama grand la. Hmm. mu nekkee sa grand. caat moo ma mag moo ma mag. mooy sama doyen ci làmb tamit aussi. Mm. su ma magul woon sax ci âge mooy mm. sama doyen te moo mu bon bon bon moo may mag te sama doyen la ci làmb aussi. Mm. waaw. benn baraak naam am na ay saa yu mag yu fa nekk. ñoo mm-hmm. gis ni da nga défendre benn baraak ba benn baraak tegu ci yoona mm-hmm. nga nekk xale. nekkoon ci benn nekk ci benn dimension sax laay wax di tegle di daal di daan di daan di daan. soo juumul ba sa huitième combat ah? hmm. Hmm? ba sa huitième combat ban combat lañ la freiné sa ñaata combat. sama premier grand combat sama sama huitième combat la yaa non sama septième non sept sept wala daal sama huitième combat huitième combat waaw. Mm-hmm. la. Mm-hmm. sept victoire yu laa tegale soog a am defet mooy euh, sa premier grand combat. Mm-hmm. yàgg Tafa Gueye mu nekk combat boo xamante ni. ñu bari dañ la doon jox favori bien vrai que ne kii moom moo la jiitu dañ naan expérience face à la jeunesse. ñu mhm. gis ne nga bëree combat boobu noonu. ñu gis ne sa premier grand combat noonu nan la demee woon ci yow. waaw boobu rek comme yeneen combat mhm. donte que man lañ joxoon favori maay xale. maa ëpp doole. man maa dàq bëri ndax bëri doole koy def waaye. du question ni ki kii xale wala ki ëpp doole rek moo war a daan déedéet mm-hmm. yàlla séddalewul noonu mm-hmm. te gémmiñ gu mu xar da ciy def dara jour boobu ñëw naa indi fulla ak fayda état mbooloo tout ay yàlla àndul ak man mm-hmm. ma xam ne àndul ak man ma ànd ak samay mbokku ñibbi waajaat ñëw nekkaat ci ma tegalaat samay victoire ba sama dernier combat comme dab rek yàlla àndul ak man. dinañ si ñëw sa combat ak Tafa Gueye te bu ñu tegaatee image bi Armé lan moo daan ci combat boobu. waaw boobu li li ma daan ñàkk xam Tafa Gueye bokk na ci ndax Tafa mm. mbër mu gaaw la daf ma xaw jaxase. Mm. foo ñëw man lépp gaay naa non kii mag la jàpp ko jarul sax nekk foofu di kii jàpp ko rek daan ko. mu ñëw indil ma bagaar xaw xaw ma jaxase quoi. ci biir bagaar bi ma ñëw xaaral ma reyante dama xàcc rek mu daw ne coppeet sama tànk bi. te loolu sax yàlla xam na ni man dama moo tax ma dama toog di ree. ay borom doole dañuy daw ne coppet sama tànk bi seex ko ba jeex ma bàyyi ko di reetaan duñ ma daan. mais da koo jël automatiquement. boobu mën naa ni damaa tiit ndax bi ma nee rek. damaa egg suuf mais bu ma teeyoon jël sama tànk noonu loolu daanu ma nooju nga xam moo gën a garaaw nit day jël sa tànkam teg ma fii nooju ma dama lay dëpp mais gis nga bus boo waree daanu. <laughs> non yaay <laughs> ma xool Tafa boobu après maa ngi Mbaye Mbaye Diouf Mbaye Diouf bu Faas. Mm, Mbaye Diouf bu Faas dafa nekk Bawol ah. waaw waaw waaw Assane Ndiaye sama mm-hmm. combat moom metti na. Mm-hmm. Mm-hmm. gars naan armée xamee wu doon daw. non combat bu metti la. parce que combat boobu yi ci laxasu dafa bëri. mais mbër la nga foogoon moomu. non du question la nga foogoon. làmb daa am ay réalité mbay juuf uh-huh. sama combat ak moom mën naa ni bu dee jàpp ci gàllaaj dama koo wax am na nit ñi gëm ko uh-huh. dañ maa jàpp Mbaye Diouf Mbaye damay dóor ba ba man public bi laay xamee ni maa ngi ci stade bi bu ñuux rek ma soo xaw a mel lu ximalu ko mais boobu xamu ko su dawoon sama kaw du du fekk dara gis nga jàpp jàpp jàpp moo doon lu doy waar du question dañ la dañu téye say bët nga gëmmu nii comme gumba noonoo sa xel la ñuy téye xel mooy doomu aadama lépp looy def xel moo koy def te am na ñu yàlla may ci loolu waaw. kon sa combat ak Mbaye Diouf nekkoon ar da nga doon kii rek da nga doon. laa yow yow yow yow yow ku ma xam xam compétence yi nekk ci man xool na ma doon bëree. Hmm. mel ni ku mosul xam nu ñuy bëree. Hmm. yàllaa dogal ma ma ma ximmaliku samay sama sama waa staff comprendre loolu boo gisee. taala Diop daw xëcc ma. gars yi ñëw lakk sama karaw beeg yooyu. billaahi damaa ñëw rek nekk ci géew maanaam sama xel xam ni man damay bëre si. ok waar laa lay wax. Uh-huh. mbër jàpp ma man ma yëg ni man dañ maa jàpp. Uh-huh. benn mbër mu laa sentir ne moo ma jàpp muy Mbaye Diouf. jàpp bu tax ñuy wax. Mhm. mais après waaw maa daan yàlla suturaal na ma. xam yàlla yàlla lu mu rek mais combat boobu. Mhm. non man dama doon toog ne lu tax ñaakuma ko ndax man damay toog di xalaataat man nekku moon ci làmb ji. loolu ci jour combat bi la wala avant. combat yow ci biir géew bi nga naan ma jour combat li may def yëpp maa ngi koy xam maa ngi dox maa ngi ñëw maa ngi kii mais buñ duggee ba arbitre soufflé sama xel mi moo nekkatul woon ci làmb ji. kon sa xel lañ yóbbu woon. ah noonu la jàppee mbër. ok. ñu naan dañoo jàpp loxo yi. Hmm. Ah, bu jàppee sa sa xel. Hmm. say loxo nu muy jógee balaa ngaa xalaat ne yow da ngaa war a jóg yow fekk. ni hmm. fi ngeen ci ngay nekk rek fa la fa nga téye nii rek yow loolu ngay gis.